23 juin 2011 nekk na bis boo xam ne ni taarixu Sénégal dootu ko fàtte booba ak léegi toll ci juróom-ñeenti at di bis boo xam ne nii di ay jàmmaarloo yu tar yu amoon diggante nguur gi ak askan wi ci njiitu ab wax dem mi nga xam ne nii moo nekkoon njiitu réew mi gannaaw ay dogal yoo xam ne nii bëgg na ko jël ci jobaree boppam jalgati lii di chartu réew mi taxaw na nag askan wi génn lànk ne du fi amee ay politiciens yu bokk ci kujje gi ay woykat ay kuréel yuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ak yeneen kuréel yoo xam ne nii taxawoon nañ temm nag jàmmaarloo nguur gi ba loolee ñu bëggoon am nañ ko nguur gi deltu gannaaw ca lam naroon. bis boobu nag bari na ay xew-xew yu fi lool li ci mel ni lii di mbiru xolum Ndakaaru takk der yi xëy gaaw ko raglu lool ak seeni i ngànnaay seen ak tiital ak seeni i taxul benn yoon askan wi deltu gannaaw lañ bëggoon am nañu ko. ndax bis boobu bokk na ci li nga xam ne ni askan wi def nañ ko muy lu mës a am ci taarixu Sénégal dem ba ci fii di pencum ndaw réew mi di assemblée nationale ba ci buntu barrière yi am na ay kilifa politiciens yoo xam ne ni jot nañ faa tënk seen bopp ñenn ci ñi nga xam ne ni ñoo jiite réew mi jamono yi ràññeeku woon noonu lool ci xeex bi mën nañ ci jël misaal ki di Moustapha bis boobu kat xeer bu magam la yor ànd ak i gaayam wàcc ci terrain bi di ko njàkkanteeg takk der yi ngir nag xeex ak charte yooyu nga xam ne ni Ablaye Wade naral na ko indi bokk na ci charte benn bekk boo xam ne nii moom lañ ci mën a fàttaliku muy benn ndogal boo xam ne nii bu jàlloon bis bu fi jógee moom ab Ablaye Wade ki di doomam di Karim Meïssa wadd dana ko mën a wóotu ci réew mi bu boobaa loolee bu amoon Sénégal dana delluwaat ci buur gi donnante diggante baay ak doom maam ak sët bis boobu li ëpp ci askan wi bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ci biir ndakaaru ak biti ndakaaru ñëw nañ nag ñoom ñëpp àndandoo bëccëgu lëmm di xeex ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ngir na saxal lépp li nga xam ne nii nguur gi woon ca baawoon naroon nañ ko ngir ak jaay doole ci kaw askan wi ndax loolu day firndeel rek ne askan wi nga xam ne moo di askanu Sénégal gannaaw ban tànnee ay nitam teg ko ci bopp réew mi moo xam ña ca pale bi wala assemblée nationale bis bu ñu bëggee jaay doole wala leneen ñu jaay leen seen bakkan 23 juin loolu lay mandargaal. bis boobu nag bari na ay doomu aadama yoo xam ne nii teg nañ leen loxo ñeneen ñi am ci ay gaañu waaye nguur gi lànk ne du daltu gannaaw ci li nga xam ne nii moom la nar ba lànk ga daaye ñu dem ba xam ne léegi làmbaay ñaaw ci la kilifa diine yi daal di jóg jokkoog ñi nga xam ne ñoo di askan wi ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ña jiite réew ma ci njiitu Abdoulaye Wade deltu gannaaw ca lam naroon ñii di askan wi door a dal jàmm daal di am. bis boobu nag mën nañ koo méngaleek ak bisub ñaani bañ na ci taarixu Sénégal. gannaaw bi askan wi xeexee ba am lañ bëggoon ca bis boobee ba tax nguur gi deltu gannaaw ca lañ naroon boobaak léegi nag am na ay kuréel yoo xam ne nii mandargaal nañ seen bopp turoowu lu ci mel ni mouvement 23 juin boobaak léegi nag bis bi saa su ñëwatee Sénégal di ko fàttaliku ci anam yépp ren ji nag 23 juin 2020 mu ngi dajeek coowal suuf li nga xam ne nii nemmeeku nan ko fii ci réewum Sénégal 23 juin 2011 nekk bis boo xam ne nii askan wi jógoon nan tayle seen bakkan jàkkaarloo ak nguur gawoon fa woon ngir bañ ñu jalgati li nga xam ne nii moo di sartu ndeyu réew mi loolu nag war naa doon ab jàngat ci bépp njiitu réew ak ay ñooñam ñi nga xam ne ni ñoo jiite Sénégal booba ak léegi xam ne askan wi nag ñoo ñoo leen tànn teg leen fi saa demee ba gis loo xam ne nii ànduñu ci dañuy taxaw jàkkaarloo ak ñoom laaj bi ñuy laaj sénégalais bu nekk war ci am ab tontu mooy ndax ñi nga xam ne nii ñoo wàccoon ànd ak askan wi di xeex ba nguur googu wàcc ñoom ñu toog ndax la taxan ñuy xeex ñu ngi koy jëfe waaw wala déet sénégalais bu ne am na ci tontu jërë ngeen jëf